bëree bëri lay bëree bëri lay yoon man saytaaneew ma Gris Bordeaux ngi lay xool sax ba tey ci biiri bët saa yoo lo xoolee nga du mooyu la bu mag nga kan moo loon nga ne Gris moom nee na yi mu nee na ñaareelu avance am yow ko joxoon doo ko jël. yow man bëriwuma ak Gris Bordeaux. lu tax bëriwoo ak moom. waaw mais bëgg-bëgg laa wax. c'est da nga koo ragal maa mu mën la. waaw dama kaa ragal damaa sonn. mais lan Casamance naka la mën a amee ku ragal mënu nekk. an koo baali ragal. amul ragal déedéet. bëri force la. yoonu làmba boole. waaye boo leen may wax damay wax comme fit waaye nag yéen tëb état boobu noonu wuy ma guddi yi ñu toll nii boo leen ma wax leen ma affaire roi des arènes mais waaw mais franc mi la franc mi la teg ko barki dem bu yëg njaay ne Lac de Guiers na ñëw ma yoole ko maa fekke lii barki dem esat a franc waaw waaw bëgg-bëggam la wax waaw waaw bëgg bëgg bëgg-bëggam la wax na gën a góorgóorlu rek mu tëb état bi ndax bu tëbee état bi rek du baax ci moom xam nga nit mën ko ko tëkku tëkk bés boo lebe ba lekk avance am boo tëddee doo nelaw waaye na gën a góorgóorluwaat ñun bañ ñu may kenn sens xam bañ ñu may kenn sens mais bul tëb parce que képp koo xam ne bëri naa man rek daf fekk ne am na foo toll am na loo liggéey ba toll fa ñu may la may la sens mais guddi yi ñu toll nii mayatuma benn xale sens mayu ma benn xale sens lenn mooy sama objectif mooy lenn moom mooy bëri roi des arènes mais roi des arènes bi comme ni ma la ko waxee woon rek lak ba tey laay waxaat ci diggante Ama Baldé la nekk ak Modou Lo tey xëj na sa chance mooy tey Modou Lo peut-être que bu ndam amoon mais bu Ama amee ndam. c'est compliqué. mooy su Ama amee ndam ñu xam ne am na ndam. su Ama ndam sañ nga bëri moom. non bëriwu man bëriwu ma Ama de. mais pourquoi yow nga. wax naa leen ko ba sonn nee naa la man ak Ama. waaw léegi lu tax nga singali Modou Lo lan la Modou bëri ngeen ñaari yoon la. xanaa bëriwu ma ak Ama seen ñetti yoon. pourquoi pas Modou Lo mënu ñëw bëri ñetti yoon. bu ñu la joxaatee avance Modou Lo nga jël ko. anam ana avance teg la avance ci Modou Lo nga jël ko la an avance bi instant bi nii xam nga bëgguma ko perturber nit ku baax la. mais mu ngi ci sa la moom mooy mbër bi nekk ci sa viseur yow ñaari avance ak ñett bëgg nga ñaareelu avance moo Modou Lo doon yow. doom day ngéwél nga de. maa xam li ma <laughs> wax. nañ bàyyi bañ ji ba mu ci combat ba pare. bu ci génnul. ah bu ci génn bu ci génn ñu toog xaar ba carte gi tas rek loolu rek la. waaye dootul bëre beneen combat bu dul combat royal. loolu moo ma ñor fu mu ne nii guddi yi loolu moo ma ñor fu mu ne guddi yi. maa ngi nii benn la fi te dootu ñaar. salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi maam njaay maa ngi may te réew mi booba siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ba ñu ma dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb lay bari